bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp ak képp ku ci nangoo bokk ñu maase teg sunu ay gët ak sunuy nopp ci ndénkaan li sunu borom dénkoon ñi ñu jiitu woon ak ñi leen jiitu woon ak ñi leen jiitu woon ak ñiy ñëw suñu gannaaw ak nun ñi fi nekk teeli muy saa su nekk ñu fexe ba dugg ci kuréel bi ñuy wax almuttaquun yal nañu ci yàlla boole te ñooña mooy ñi nga xam ne fu ñu teg seen tànk dañ koy xool ba xam fa yàlla teg lu la fu ñuy xoolit dañu koy xool ba xam fam xool lu la bu dee fu muy lu ñuy déglu ñu xool ba xam lu mu déglu la waaw wala déet yàlla nañu ko yàlla jàppandalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax na ni aaya boobu mooy wala qad wasayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla xaraamal na ci yéen xaraam nag ku ko xamul ndax booy na ay nopp xaraam na xaraam na mooy loo xam ne yàlla da koo tere te doggu ca ne ku ko def mu def ko nangam yàlla nañu ci yàlla musal xaraamal na ci yéen kon lu mu gàll ki suñ kaw la aleykum uquq al ummahat fexe ba yëkkati jëwug ay wayjur rawati nag wayjur bu jigéen moo tax baat bi ko wolof tuddee yaay làkk woo ko mën a dégg ñu tuddee ko ko da ngay xam ne jigéen la ndax mooy jur yàlla na nu ko yàlla déggloo kon dafa gàll ci suñ kaw ab yaram ne ku ko def dana ko jëflanteeg moom yàlla na nu yàlla musal ci jëflanteem bu dul yërmandeem waaye nee na nag kariha lakum bañal na leen lakum amu ca intérêt donte li ma jëkk wax amu ca intérêt waaye dafa xaraamal ku mooy ay waajuram waaye bañal na leen lool yàtt lu mu bañ nag bu ñu bu ñu dee wutal néeg bu ñu ko dugal dañ koy dugal ci néegu tere na ko rek néexu ko bëggu ko bëggaluñu ko yàtt mooy xiila xaala waxeef na ak nee na benn ñaareel ba lu ne nga laaj ko lu tax lu tax lu waral war lu waral ak lu tee kañ la nan la ak fan la ba mu ne gàññ ba ko ñetteel mooy sànq alal xiila wa qaala wa kasrata wa kasrata su'aal wa idaat al maal alal nag du lenn lu dul loo xam ne dunduk nit mënu koo jeexal rek lépp loo xam ne nit day dund bàyyi ko fa ñeneen dund bàyyi ko fa moo tudd alal ji tax muy wax lu ca dugg ci sa loxo lu mu la dénk rek la day jógewaat ci say yoxo dellu ci yeneen i loxo yoo xam ne ñoom yàlla waajal na leen ba noppi moo tax lu dugg ci say yoxo fexeel ba lu ca mën a jag rek jag ca tey nag ñu tànn ci xiila xaala lépp tànneef la waaye dañ ci jël bopp ba beneen xiila xaala jooju naan waxeef na ak nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla nee na na ngeen ko moytu fi mu toll nii temb dafa mel ne jàngoro ju law ba tasaaroo daj fépp néew na jataay boo toog ab diir te jëfandikoo wuñu fa ñaari kàddu yooyu waxeef na waxeef na nag ni ñu ko tënke ni ñu ko tëgge fii ba jant bi jógee di xëyee sow di jëm penku ma ne naa bañ a xam ko ko wax comme noonu xii la waxeef na rek xaala nee na nee na it ñaare bu ñu ko toppee mën na sës foo xam ne kooka day jox ñaar keneen ne man mii kat du man diwoo ma ko wax ñu jël ci misaal am na dëkk boo xam ne soriwut Tuubaa lool kilifa ga fa dëkkoon da doon def bu ab waxante amee xiilaa xaala day woote ci pénc ma ñëpp génn ña ko mën a fekke bokk fekke ko mu ne ana ñi fi indi wax ji xiilaa xaala ji ñu ne noo ngi nii mu ne yéen toogee leen nee ana ñi nga xam ne seen yoon nekku ci ñu ne noo ngi nii mu ne yéen ñi ñëpp dem leen ca ndaalee guux ca te bu kenn guqi te waxal digaluma la ko balaa xiila jàq xaala ji gën dolli ko waaye fa muy mujj foofu rek lay mujjaat xiilaa xaala ab jataay bu yàggee tuuti rek loolu judd fa judd fa màgg fa am fa barke màggat fa su ko defee bu ne diw loo fi indee diw mu ne li ma ko fi indee day du lenn lu dul diw mee moo ma ne te ña guuxoon ndox ma kooka buusu ndox ma ne déet man koy bu ma ci kenn tudd xanaa diw ngay wax ndax lu ma ca xam moo ma ko wax kooku buusu na déet xanaa kay waxu leen ma noonu lañ koy def ba mujj li ñuy def mooy jàppante téere baat kon xiila xaala li tax yonent bi ne yàlla da koo tudd tere ñu ñett jiital ko ca yàlla day gis lu li teew ak la ñëwagut di gis la wees sañ fàtte ko noonu kon xiila xaala waxeef na ak nee na dem na ba doon sax waquud li dawal wata yi ak yi dox yépp ci ay machine waquud lañ koy tudd am na fu suñu ba doon dox ci alxuraan naan ëllëg si biir am na sawara waaw lay doon waquudam mooy nit ñi ak jinne yi yàlla nañu ci yàlla musal nit ñi ak doj waquudu waquuduha annaasu wal xijaara naaran waquuduha annaasu wal xijaara li wéetuwal kon mooy néew na ab jataay boo xam ne juddoowu fa yaroo fa màgge fa léegi nag kenn ku ci nekk war naa xool fu mu cay dugg ndax day bokk ci ñi naan xiila wala ñi naan xaala wala ña leen di déglu ñu koy wax waaw wala déet ku doon def fu mu fu muy toog fu nekk day delloo si jataay ya mag nga doon tooge mag ñi nag mag yi lislaam ya moo ma tax di wax mag ñu jub ña nga xam ne fi ñu masaan di waxee danañ wax ak boroom xam-xam wax ak ku ne ci diggante bi wax ak ku xamul dara su dee boroom xam-xam ñu naan ko alquran nee na qaala allaahu qaala allaahu qaala al rasul qaala al ulama qaala al ijmaau su dee koo xam ne ci diggante bi la nekk mu di ko jox ay misaal yu leer nañ yu muy mën a teg loxoom te fekk foofa la koy roote ku ci mel ne sëñ bii nga xam ne moom nekkoon njëriñ te mu joon ñëw Tuubaa moom dana def ay tomb tomb yi ñu jàng ci naxu noonu la daan def waxtaanam yu bari ci wolof yu leer nañ li tax ma tudd wolof nag mooy ña ëppoon ci ña ko doon seet si loolu lañ doon wax mën naa am bu doon bu ñeneen doon ñëw ñu gën a bari it mu wax ak ñoom leneen. jataay boo xam ne daara la woon ku ca ku ko fekke weer see delloo fa nga jóge woon danga raw ñu bari ku ko fekkem at noona ku ko fekke yaari at sakkantuma ku ko fekke fukki at ak juróom yi nga xam ne moom la mujj a nekk njareem ak ñu mel ne moom ci réew mi yàlla amul lenn lu mu am lenn rek mën naa am loo ko xam nag waaye am na jataay yoo xam ne itam bu ku fa jëlewut xam-xamit da nga fa jële aw yiw ndax doo fa dégg loo fa wëtt a dégg waaye am na jotaay yoo xam ne it ku fa jóge kenn dut la mën a nax da nga naan jar waaye ana suñuy jotaay léegi waxeef na nee na nee nañu ci saa si am ñoo xam ne duñu wax duñ tontu waaye seenu xarala lañ cay jaay dañ koy daldi def live live mooy mubashar fu waay nekk ci àdduna bi mën na koy gis te ñoom jubluwuñ ci woon sax mu génn fii ñu toog ku nekk jël ko yóbbu ko yàlla noonu yàlla musal ci boobu gis-gis xiila xaala nag ku ko moytu dana am fu mu ko yóbbu moom lay mujje waaye am na foofu xiila ak xaala bu ñu demee ci alxuraan dafa séddalikoo ay xaaj yu bari danañu ci tànn ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy fi xaala amee njariñ xaala fu mu amee njariñ nga xam ne suñu boroom dafa ñu doon nettali ci benn ci yonentam yi kenn ci yonentam yi salawatullahi wasalaamu alayhim ku tàllaloon ay yoxoom yàlla di ñaan di ñaan di ñaan ba yàgg mu ne yàlla may ma sama mbokk mii doon ab yonent ni man ndax léeg-léeg ma dem ci pénc moo xam ne mii xiilaa xaala du ma ca mën a bokk ndax sama làmmiñ setewut na mu war a sete ci sa coobare huwa afsaxu minni lisaanan fa arsilhu mayi yàlla daal di nangu ñaanam nga foofu xaala bi ñu alxuraan di nettali naan qaala qad ujiba dawatukuma fastaqima wala tattabiaanni sabila allazina la yaalamuun foofa xaala am na fa njariñ lool nee na yàlla da leen a wax ne seen ñaan googu ngeen doon ñaan yàlla nangu na ko nee leen coow ci yoon wi ngeen jaaroon te lu mu yàgg-yàgg bu leen tegg seen tànk ba di ko teg ci yoonu ña nga xam ne du ñu wax dañoo bañ yàlla waaye dañ ko umpale wala xamaguñ ko nañ ko war a xam loolu mi ngi koy wax diggante Seydina Moussa ak Seydina Harouna alayhi salaam kon foofa xaala am na fa njariñ di nett lii loo xam ne ku ko dégg jariñu terewuñ ko ci benn jotaay waaye xaala itam am na njariñ fii Seydina Noox ñu doon waxee ak yàlla bam naan yàlla kee di bëgg a lab sama dooma mu ne ko déedéet innahu laysa min ahlik seydna nooxin tuub ne qaala rabbi qaala rabbi inni audu bika an asalaka maa laysa lii bihi ilmun maa laysa lii bihi ilmun wa illa taxfir li wa tarxam ni akun min alxaasirin yu bari ci alquran la yoo xam ne ñu di ñu naan la nee na am na njariñ lool ndax bi ma njëkk a wax mën naa yokk laxasaayug koo xam ne day faral di ñaan rek te du ko faral du ko gaaw a gis du ko gisagun yàlla ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ne ko yàlla kat am na ñu ko ñaanoon lu gën a yàgg lii nga ñaan te nee na leen woon qad ujiba da'watukuma waaye kii itam mi ngi jàngale ku dem ba yàgg tànkam bëgg a tarfati donte loolu du mbirum ab yonent yërmande ak nite moo ko dalal innahu inna ibni min ahli inna bni min ahli waaye ba ko yàlla ne innahu laysa min ahlik lii boole nit ci ahlu nangam mooy ngeen bokk pas-pas tamit pas-pas bu ñu war a fas lu mu def ma sa jàngati ne kon wàññikuwaat ci njuumte du weesu moom la yonent bi jàngale ne yàlla nee na sidna Nuuh dafa ne qaala nee na rabbi inni audu bika an asalaka ma laysa lii bihi ilm xaw ma woon ne bokkut ci sama waa kër wa illa taxfir li wa tarxamni akun min alxaasirin waaye xiila nag moom ana fu mu amee njëriñ dëgg-dëgg te ku ne bëgg caa dugg waxeef na yaa nuuxu ihbit bi salaamin minna wa barakatin alayka wa ala umma min mimman maak ba mu jëfee ndigalu suñu boroom asamaan di taw suuf di génneem ndox ba lépp lab te nit fi mën a dund xelam dal mooy kaw suuf si rek fu mën a nekk furul ci kaw suuf lu xéewalee bari bari ak ku ko fa mën a wettili wàcc ci kaw suuf mooy dal xelam ba seet ci seen xel nekkee ñoom ñépp nag yàlla ne ko goon ihbit bi salaamin minna wàccal ci jàmm ci kaw suuf si nga xam ne mooy seen suufi maam ya mooy seen barabu maam ya yow mii ak képp koo xam ne dem na ba bàyyee yàlla ak boppam di déglu ndigalu suñu borom fa ko yàlla di wàccee di ko fa cëppeel du du doon mukk fu naan fu mu naan fii fii ndax yàlla gën a xam fépp waaye am na xiila joo xam ne it amal na nit ki njariñ wa ida qiila lahum la tufsidu fi l ard waxeef na leen ne bu leen nekk ci kaw suuf si ngir anamu yàq kese kese daa am leen taxul ñu indi leen fii yàlla moom mu di wax ak yéen huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha yàlla moo leen fi wàcce moo bëgg ngeen dund moo taamu woon ngeen dundalal ko suufam si waaye bokk yi am na foo xam ne xaalam yoo jëkk a wax tudd naa junj naa fenn fu mu amee njariñ lool qaala qad ujibat daawatukum qaala rabbi inni audu bika ak qiila yaa nuux ak ida qiila lahum laa tufsidu fi l ard waaye qaala nag ana fu ñu ne nee na loxo dem gémmiñ fa qaala ana rabbukum al aala nee na ka doon wax dane ci ko tàmbalee tey ji na ngeen xam ne maay seen boroom bi gën a kawe dafa njëkk ne maa alimtu lakum min ilahin xayri ilaahu lu nekk dañ ko daan wax bu njëkk waaye rabb na kenn rekk la qul man bi yadihi malakutu kulli cheyin wa huwa yujiru wala yujaaru alayhi in kuntum taalamun sa yaquluuna lillah sa yaquluuna lillah allahu ji moom bari na lu ñu ko tudde waaye rabb moom kenn rek la moo tax ba mu ne ana rabbukumul a'la nee nañ seytaan dafa fëq dafa fëx ne yaa dégg naa lu ma mës a dégg nag dégg na safan bu ne wala musuma ca musuma koo dégg tey guleet waaye xaala it nee na it wax nañ ko loxo demaat gémmiñ ba ka bewoon naan ana uhyi wa umit maay dundal di ray foofu yi loxo dem na fa gémmiñ kon nee na yow yi dara jëru caa nettali lu yóbbu loxo gémmiñ waaye am na xiila joo xam ne it safaanub yaarab yi ma jëkk a wax la yaa nuux xebit bi salaamin minna ak laa tufsidu fi l ard qiila duxulu abwaaba jahannama xaalidina fiha fa bisa mathwa almutakabirin waxeef na leen ne leen ah gannaaw yéen yéen a fi nekkoon ci majalis yi naan qiila xaala rek udxulu jahannam fekk la ko jiitu mooy wa siiqa alladina kafaru ila jahannama zumara waaye summa qiila lilladina zalamu duuqu azab alxuldi hal tujzawna illa bima kuntum taksibuun kon boog loolu mooy waxeef na leen ne leen yéen ñii nga xam ne jataay bu ngeen toog xiilaa xaala juddoo fa ak xaalu ak yaquluun tuubu leen ko ba faatu bis ni ki tey duuqu azab alxuld mos leen ñam leen lii nga xam ne ku ci xas ba dugg dootoo ci génn alxuluut mooy loo xam ne ku dugg dootu génn yàlla na ci yàlla musal moo tax li ma ne woon ku ko moytuwut day am bumt bu mu lay dugal boo xam ne boo fa xasee ba dugg ku ci xas ba dugg boog laay wax defar ko dana jafe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax maa jalasa qawmun majlisanaa walam yadkuru llaha azza wa jalla illa kaana alayhim tiratun képp koo xam ne fu mu toog du fa wax lu jëm ci lu baax lu dul xiilaa xaala yoo xam ne amulut ña koy déglu benn njariñ moom ci boppam sax njariñ lam say am du ko mën a leeral waaye tàmm na ko nee na kooku nag su ko bàyyiwul la mu koy indil ëllëg mooy xasra ak nadaama lot ci aw lay lot ci feesal ay balaasam réccu goo xam ne réccu amatu fa njariñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy leeral daf ne laa yadxulul jannata qattaatun du dugg mukk aljanna qattaat ñu ne ko mooy kan mu ne ab ràmbaaj dellu wax ne doy na sëkk bakkaar bu nit di am te doonut lu mu jëf dëgg sax waaye da ko wax mooy lu mu dégg rek jàllale ko xii la te mënut a xam ka ko wax kan la xaala nee na topp loola nga xam ne da nga koy topp di topp doo xam fu mu sës fu mu bëgg a sës kooka ne déet comme ni ma waxoon ci ni ma ni ma ko misaaluñ ko tàmbali ba rek ku mu sës mu nekk mu joxoñ keneen moo tax mu ne kafa bil mari kadiban an yuhaddisa bi kulli ma samia koo xam ne fu mu toog nee naa nee nañ rek mooy waxam day mujj soppali ko fenkat te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fen fi mu jëme nit mooy da koy def kàccoor kàcc kàcc cim soow mooy soow moo xam ne daa dañoo dindi nii mu rax ndox kàccoor nag yoon moom jaar bu ko wàccu sawara la jëm nee na nit dana tàmm fen ba su tàndalee wax loo xam ne dëgg la sax muy ay fen maanaam ana ku baax ki mu ne mi ngi ci biir fa la ko bàyyi mu toog waaye boo demee doo ko fa fekk nga xam ne fi mu génnee ak fi nga duggee mëtu sax juróomi meetar bunt bi rek sax dox seen diggante waaye boo duggee fen mën a fen a tax doo ko fa fekk dañ naan la léegi la toogoon fii de da day waaj waaye waxam ja moom du dëggu mukk ci àdduna ma ngi ci biir nga fekk ko fa déedéet anaka nga seeti woon ba tane na ah tubarkal la mu ngi koy fekk naa mu mu tane naan na ca ruyam ba soo àggee feneen bi day soppaliku safaan ba da ngay fekk muy binni di wiliñ wiliñ ñam fa fekk duñ ko sal sax moom mi ko seet si lu may di ko bës ak ak defal inna alkadiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila annaar wa inna alrajula la yakdibu xata yuktaba inda allahi kadaba yal nanu yàlla sàmmal boppam ku yàgg fen nag ba tàmm ko ba tàmm ko dafa am beneen néeg bu mu koy ubbil dugal ko fa muy rambaaj rambaaj boo gis am na ñaari daraja am na darajay fen fenkat bu mag bu ca am ay daraja ay garaat do soog a takk nag garaatub ràmbaaj mooy bu demee ba amatul lu mu wax day sos foog naa am na ku ma ko wax bari na sax ci yi ñu nettali Sëñ Tuubaa am na mag mu wax ne moo xam ne bu ñu ko waxoon ñëpp xam aw turam nañ ko wax loolu la riwaaya nangu da nga naan ci diw laa ko jële mu jële ko ci diw wala am na benn bés ci bisi suñu borom yi mën naa wax dëgg benn bés ci bis suñu borom yi mu des nag firnde yi ak fu mu ko wéer ak fan la ko jële toxal ko ñu sa ko xool ba xam ñam ko toxale mën nañoo wér waaw wala déet moo tax alxuraan jàngale woon ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moytu leen di tudd nit ak lu mu mën a doon yi nit àndal fu kooku nekkut wala lu lu foofa lu xewut foofa daal di laaj ne ndax ci yéen ñi kenn ci yéen bëgg nañu tong tong mbokkam ci penc ma jox ko ca nar mu yóbbu wala saam tontu la mooy déedéet wala yaxtab baadukum baadan ay yuxibu ahadukum an yakula laxma axi mayitan fa karihtumuhu inna allaha kariha lakum thalathan fa karihtumuhu kon jullit bi lu mën a xew ci jamono bu fekkee xew-xew ba mu ngi tënku ci nee na ak waxeef na ak nee nañ la cay topp mooy boo sàggantut boo watuwut dem lee mën naa am zanna wa axawaatuha jullit bi war na bàyyi xel ne yàlla nga ko booleeg ñoo xam ne bu waxee ba daaneel mu wóor ko ne li mu wax du dëgg na gaaw tuub ndax bu ñu ko xasee ba bind lay tax ñu far ko ca ca beneen beneen yoon mooy mu tuub maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dellu gàllar ko suñu kaw mu gën a wóor mun a inna alaykum la xaafidina kiraman katibina yaalamuuna ma tafaaloon yaalamuuna jooju dañu ne danañ ko bind lañ ca jublu liir ko di ko nafaraka nafaraat saa bu ñoom yi armel armel yi woo ko doon tamit na ko ba ñu dégg waaye woo gi mooy saa bu rombee armel dana xam ne armel la romb te moom mii di dox xam na ne ñee fa tëdd fa la jëm si rek bu jëmu ci armel yooyu mën na jëm si yeneen armel waaye tere benn bee muy ba ñu tënku rek ci xiilaa xaala ak xaalu ak yaquluun yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp te musul ñu ci jotalikaay yi xew léegi ndax kat ku ca ku ko def sukkandikukaay sa loxo du dañ di dem ci sa gémmiñ te ab tibb du ko ca yóbbu ku doon def lu mu dégg ci ñaari baat yooyu ak yeneen ya mel ni ñoom xiilaak xaala mu jël kayit bind waxuma ay téeméer waaye ay junni mu jëlladaat da koy am mu jëllaat mooy ab tom wala wëli mub téeréem bu fees dal la ki téere kon yi romb di dem bari na waaye nañuy xool fi ñuy dem ak lañ fay waxtaane ña ko fay waxtaane ñu mu doon foo xam ne boo fa demee mën nga faa jëlee xam-xam ba boo xamul sa mën ngaa xam lu bari ak foo xam ne mën nga faa jëlee aw yiw ndax buñ la ko waxuti da nga dégg ñu di ko digal kenn nga jëlee ko fa wala boog nga jëlee fa ci ak yeewute mahara yoo xam ne boo ca xase boo ko xas loo ca xas ba xam kenn duutu la ca mën a nax te nax nag sëñ bu mag bi nee na woon ki lay nax moom mën na caa bañ a am bàkkaar ndax ni mag wutu ni yàcc yàccaaral ñu di ko nax te amut tuyaaba leneen nga dégg ñu ne diw daan daa xam daa xam ñu di ko nax mu di ko nangu loolu njuum te mën na caa am ndax li sëñ bi digle digal ko ñu ko war a digal kenn si ñoom du la si ko war di def leneen di nangu ñu di ko nax tam xam ko xanaa kay fa mu koy dugal rek mooy xam ne yow mi jàng nga yoonu fenn doonu fenkat doonu bara mbaaj bis bu set ngay muy jàmbat loo xam ne damuy wut noona di ray ku nekk nit dina ñëw ne nanga moom moo faatu mën naa gën bën bëtt ay gët sax di jooy te dara xasawu ci te fenn képp daa doy bàkkaar ni ko suñ bi jàngalee ci téereem boobu ñuy wax aljawharun nafis doy na sëkk musiba ci dundug ab jullit te bokk yi jullit bi li muy def te yëgu ko day mel ne donte xam na ne warisu ko def waaye day dem ba tàmm ko duutu garaaw ci moom day mel ne ku sol ak cuub gu rafet cuub nag boo ko déggee nekkatut lu weex lam doonoon nga jël acide wis ko ca ci njëlbéen du ca feeñ wala eau de javel waaye su yàggee tuuti dana xam ne amul solo jam waxoon ci jotaay ba mi ngi tàmbalee am solo ndax bu dee ko xay dëgg-dëgg mbubb moom dutu ko sol day bënn su dee ay couleur la am day couleur bi day tàmbalee soppi ko kon jikko yi nga xam ne day dab nit mu dégg ko bu ko xase ba dégg bu ko tegoon tànkam na ko teggi bu fekkee teg gu ci woon tànkam na ko moytu muy li yonent bi ne woon inna allaha kariha lakum salaasan jiital ca xiila ak xaala tañ tànn nañ ko ci tey yàlla nañu yàlla dafa dégg topp te musul ñu seytaane nekk pakkam yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimina amin